mooy sëriñ bi moom liggéeyub lislaam ak maamam moo ko fi indi woon muy lu mu fi doon taxawee bu fi nekkeet muy président Sall ak euh, keneen ku bokk ci beneen parti am nga droit ñëw seet si ko euh, waxtaan ak moom ci la nga war a waxtaan ak moom mu ñaanal la nga dem waaye euh, la fa am man sama jëmmi bopp moom awma ci gis-gisu kane di ko rafetlu ndax jëmmi barab ba ba ñu koy defar lu mel noonu taxu koo jóg mooy dafa doonoon barab boo xam ne barabu jaamukaayu yàlla la. jaamu yàlla yaatu na du julli rek mënees na faa def ay conférence ak yeneen ak yeneen waaye la fa am démb ñun ñëpp am nañu seetlu gu ne politique la boo xam ne dañ ko mbubboo ci diine. maanaam dañu woot nit ñi ba ñu ñëw mu mel ne sëriñ bi lañ leen woowee ñu def fa seen mbirum politique te ma gis ne gis-gis bi ma ci amit bu ko keneen bëggoon koo xam ne nekkul ci pouvoir bi du am. Mm-hmm. doxin woowu nag doxin wu ñuy ñaawlu la ci yoon wi ndax dafay doon loo xam ne dafay xajamal lu bare baree bari te day tax ñi nga xam ne saa su nekk lu ñaaw rek la ñuy bëgg a gis. Mhm. loolal fi leen koy may ku mel ne mbakki yu fay bu fekkee ne yàlla dafa dogal bi fi sëriñ bi ñëwee mu génne alalam joxe ko. un milliard ba nit ñëpp wax ma murid waaye jëmmi ko di jullit rek. te yàlla def sa xol muy xol bu rafet nga nga nga nga sant ci mhm. kontaan ci. Mhm. yaakaar naa ne bu dee daray daray àdduna raxu ci woon lee mu def démb du ko ci def ndax murit yëpp ko sant ci loolu gërëm ko ci. kon bu demee ba ci biir démb mu def nee mu def dafay mel ne que lee daf koo làqoo woon ngir su defee lii du feeñ. waaye nag dafa mel ne sëriñ bi kenn daf ko mënta nax ndax sëriñ bi lépp loo koy defal bu ca dara yi ngistal nekkee wala lu dul yàlla wala lenn loo ciy mbëbb moo koy feeñalal boppam te démb loolu lañ ci gis mooy dafa woo murid yi ba ñu ñëw wax la mu war a wax ak kafan président loo xam ne xëy na man naa am barab ba soxla na ko te muy dellu ci jullit ñëpp mu wax ko ñu jógee fa waaye li doon def politique la. lu ñu ñaaw loolu la itam parce que moom dafa sax amul pour mën a wax ci turu murit yëpp ba taxaw fa di fa wax ci turu murit yëpp benn. bi ci des mooy na mu waxee moom la conserné parce que ñun murit yi wala ñun jul taalibe yi jullit ñi wala ñun sénégalais yi bu ñuy topp sëriñ bi dëgg la bu nu digalee dañuy def. loolu ñun ñoo ko jaayanteeg sëriñ bi waaye jëmmi sëriñ bi itam euh, yàlla rek moo ko moo ko ñor ay ndigalam daanaka lépp ci sunu borom la jëm. Mm-hmm. amaana bu demoon ba xool situation réew mi xam ne mu diglee te bu diglee mooy sauver réew mu digle boobaa dina ko defal boppam. boobaa itam taalibe yi dinañ jël seen responsabilité topp ko ca waaye du moom mooy taxaw pour manipuler murid yi pour manipuler tam mu ànd ko mu ab lobby lañ nag bu ko ànd. ah lobby la si lobby la. <laughs> li xew ci ci yoon yi moom. pour yow lan moo tax mu ñu taxaw taxaw boobu. ci waaw li taxaw mel na ku lancer campagne yi daanaka ñu bëri dañuy lancer nañ. campagne waaw la. Eh, législative yi sax. li tax ñu jàppale Macky Sall li tax ñu def ko man damaa jàpp ne xay na ñoom. am na lu ñu bëgg seen digganteeg moom wala am na lu ñu bëgg ci ci ci seen intérêt bopp loolu nag xaw ma ko. Mhm. man damaa jàpp ne looloo tax ñu def ko bi ci des mooy xëy na président Sall mel na ne xaw na amuk jafe-jafe ak ñenn ci murid yi. rawat na Touba amaana jàpp nañu ne. bu ñu waxee wax ju mel noonu taxaw murit yëpp dajee ñu waxee mel ne ku waxee ci turu sëriñ bi wala sëriñ bi def ko def ci ànd dina tax murit yi doxin woowu changé te amaana diggante président Sall man damaa jàpp ne ak murit yi <laughs> du du problème bi du du ñoom jàpp naa ne fi ñu ko foogee problème bi damaa jàpp ne la ñuy yëg ñoom ba jàpp ne président Sall même li muy wane ci kaw nii lu muy wane la may ak naxe la murit yëpp loolu lañ jàpp dañoo gëm ne li muy wane nii ci kaw ak naxe la jàpp ko mooy dañuy dellu ci ginnaaw bi muy doog a toog avant muy toog am na wax yu mu waxoon jëmale ko ci kilifa yépp bi mu toogee ba pare itam am na jëf yu jëf ci ay kilifa muy ñenn ñi ñi ay oto yu leen ki fi Abdoulaye Wade joxoon teral leen ko mu nangu ko ci nangin mu doy waar ñii ñu dugal leen kaso ñii ñu xoqatal leen loola nag ab taalu bi bu gisee yow nga def ko kilifaam boo wëlbatikoo demaat ba ci biir mu leer ko ne ko amaana dem nga ba xam ne yow mii kat lii nga def nii moo lay xañ lu bari ci wàllu politique nga bëgg dellu ginnaaw day xam ne gëmoo ko kon sa intérêt tax nga koy def mm-hmm. te ñun li ñuy def ci sëriñ bi dañ ko gëm jàpp naa ne problème boobu moom pour mu régler ko du ñii mu mu mu dajale ñoo koy régleel moom maanaam ñii mu dajale nii seeni wax mbakki yoog ñeneen ak ñeneen du ñoom ñoo koy régleel ñi may gis nii ci télé bi ñoom ñuy wax nii du ñoo koy parce que nit ñi dañ leen a sax bàyyiwut xel li ci gën a doy waar mooy da gis koo xam ne day génn bu waxee ba pare nit ñi commentaire sax boo ci duggee yow da ngay mere da ngay da dem yéemu ci yàlla mm-hmm. parce que xam nañu ne dund seen bopp rek moo la ñu rek seen poos gis nga sëñ Mahfouz mm-hmm. man dama gëm ne fii réew mi toll kilifa gu génn di wax jafe-jafe askan wi boo waxee ba yeggal waxoo ci yow war nañ war na war nañoo xool ban façon kilifa nga kii jiite réew mi itam képp koo xam ne ñëw na ci yow seet si la wala nga nga am pour wax te waxoo ko lii askan wi dund xam nga boo xoolee avant mars bi ñëw nga bis boobu ñu doon def nga seet si ma ma am wax yu ma waxoon que ni <clears throat> askan wi dañoo manqué euh, ku leen taxaw askan wi dañoo manqué ku leen waxal parce que booba ñun ay ndaw lañ dañoo nekk ci bi di jaxasoog ndaw ñi di gis di dégg di xam li xew xamoon nañu ne aw mer ci nit yu mer woo xam ne ak coono boo xam ne bis bu buñ ko génnee dina doy waar foofu laa doon waxee mhm. te lu ko raw moo ci nekkaat fi mu toll nii wallaahi nit ñi ñu ngi dund jafe-jafe boo xam ne sëñ Mahfouz dund gi cher na façon cher boo xam ne xam nga bu ñu toogee bañ na Sénégal litre diwlin mi ngi jar ay mille nangam. sëñ bi ay dem lépp lépp ci dund gi ñu yokk ko amul benn kilifa laa wax kilifa goo xam ne Macky Sall seet na la nga wax ko ca loola. lu dul ay sant nañ la gërëm nañ Macky Sall bu defoon ci Sénégal ba mu mel ne réew mi dàq ci àdduna wala mu def ko Touba amuñu pour sant ko parce que loolu lañ ko fi fale. Mhm. lan sante ay defal nga lii Touba defal nga lii Sëriñ Touba murid am na lan lañ luñ ko ci sant looloo tax ñu fal ko di avant muy toog def ko woon bu doon avant muy toog da koo jël alalam di ko def ku ne sañ nga ne ko jërëjëf parce que alalu boppam la mais alalu askan loolu lañ la fale loolu amul ci benn réew bu dul suñu réewu Afrique yii kon ñoom lee ñu def démb damaa jàpp ne amel nañ murid yëpp ak tooñaange buñ leen ko waxee buñ leen ko waxul ñu nga xam ne dañoo bëgg a jël seen bopp jàpp ne ñoom ñoo yoro yoonu murid di ci wax bëgg jël murid yëpp dugal leen ci benn saaku jox leen président Sall wala di leen businessé ñooñu ñëpp xam nañ leen nanu ba loolu loolu mënul jàll.